problème de xanaa fi mu toll mooy jaay doole rek. ba tey jaay doole parce que jaay doole weesuul boobu ba léegi euh, ministère de l'intérieur ne problème am na fa reconnaître ko euh, ou ne demandé à ce que nañ toog ak population bi waxtaan pour trouver terrain d'entente ak pick-up parce que pick-up proposé na cent millions ma leen nag cent millions moom du loo xam ne nii moom la ñuy nangu mais balaa ñuy mën a avancer comme problème dafa am yaakaar naa bu problème amee li war en premier lieu mooy pick up taxawal bu liggéeyati ba ñu régler problème ba pare mais loolu amul non seulement pick up bi ñu génnee euh, bi ministère de l' intérieur bi génnee article boobu ba léegi dafa gën a yokk euh, liggéeyam gën a yokk personnel am ñuy gën di avancer ba mujj gi di def provocation ci population ndax am na yeneen tool yoo xam ne nii dañ koo borne woon fi mu ne nii tàmbali nañ fa di liggéey population bi nag agité bëgg tout le temps di dal ci seen kaw parce que c'est suuf la ñu ko ne di caxat caxatee mais man li ma gis mooy ne que euh, intérieur bu ne régler le problème euh, je pense da koy wàccee ci préfet ndax du gouverneur moo jógee Dakar ñëw di régler problème bi fii préfet moo war a régler problème ba pare retourner à la source mais ba léegi nii may wax ak yow ça n'a pas été fait waaw vu que xëy na dañoo jàpp ne que le problème n'est pas aussi important mais il l'est euh, bés bu yàlla sàkk aussi euh, ñu am ay menaces euh, population bi dañuy bëgg dal ci seen kaw parce que tamit neexul li nga xam ne sa alal la ñu jaay la doole yàq ko toj ko ba pare tout le temps di la gën di provoquer ña fa nekk nekk fa continuer di liggéey ba pare en plus de ça administration di leen dooleel ñoom ci ñi ñu yar war a yaakaar muy kilifa yi te war a wéeru ci ñoom ñoom ñu war leen a taxaw war leen a dooleel mais defuñ ko kon c'est tout à fait normal ñu war a mën a xalaat ni que jëy ya mën na fa am. mais ñun ci li nga xam ne ni moo ñu concerné li ñu mën ñu ngi koy def di ko xeex parce que du suñu avantage tey ñu ne bakkan rot na fa ndax tey jii bu fa jafe-jafe amee wala problème ñun ñoo koy dund ak waa Dugar du administration ñoo ko fay dund maanaam bu ñu fa wàcculee sax xëy na boo boo xefee ñu yónni fa kenn pour rafetal mais du loo xam ne nii déranger na leen kon moo tax ñuy jéem a xeex ba nga xam ne loolu ñu bañ ci fa egg. bu dee problème bii gisuma ci benn taxawaay bu bi am parce que mairie da nga war a nekk pour population bu ñu amee jafe nga taxaw. bu ñu kaasee wala ñu yuuxu nga génn lijjanti lu ñu yuuxu lan la dox ci wax ci mais gisuma benn taxawaay buñ ci def euh, li ma ci gën a seetlu daal mooy ne que muy mairie euh, muy yeneen administration yi nga xam ne ñoo tënk nekk fii euh, tënk tëngeej gisuma ci daal benn taxawaay boo xam ne def nañ ko en faveur de la population